ñoo ngi koy ñaan mu may ñu ñu bokk yendu ci jàmm ñoo ngi amaat mbekte lool ci dellusiwaat ak yéen ci jotaay bi di leen ci ndokkeel bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm di ko ñaan mu boole ñu defal jàmm defal ñu jàmme àdduna ak alaaxira di ko ñaan mu defal ñu it suturas àdduna defal ñu suturees alaaxira mbokk yi bàyyi xel baax ñoo ngi leen di nuyu di bég lool ci ni ngeen ñuy toppee saa su nekk di ànd ak ñun di ñu wétali di ci boole di yónnee seeni ñaan def jotaay bi muy seen jotaay ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di siyaare doomi soxna yi bàyyi xel jotaay bi ci waxtu wi rawatina jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi di nuyu bu baax a baax a baax suñu jigéen ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi suñuy maam kenn caam ak suñu eh, jigéen ñeeg gépp rek ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di bég lool ci jotaay bi ni ngeen ko defee mu nekk jotaay yu wéttal yàlla nañ ci bokk jariñu maa ngi nuyu démb bi ñuy jeexal eh, gouverneur Aline dara Niang nekk fële ca Ndar ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di ko wàccee wàccuwaayam di bég lool ci moom di bég ci yóbbanteem ak ay rafetloom jotaay bi ñaan borom bi subhaanahu wa taala defal ko jàmm ci ab goxam defal ko mboolem ñi nga xam ne ñooy ay gouverneur ci seeni gox ndax loolaay indi jàmm ci réew mi suñu jotaayu almisbaax ñi ngi ci doon waxtaane ay tomb yoo xam ne daa jëm ci rek yu ñuy may tiyaaba waaye bu ñu fàttalikoo ab diira ñi nii boo xam ne suñu delluwaayu waxtaan moo nekkoon téere bi tudd masaalikal jinaan waaye li sababoon dellu gi yu baree bari la waaye ci biir it dañ cee fekk loo xam ne ay njariñu julli di yëpp la ba nekk bi nekk ay tem nekk ay tomb yoo xam ne moom rek euh, jaroon nañu taxaw ci di ko waxtaane moo taxoon ñu nekk ci bi ñuy waxtaane dundug doomu aadama nga xam ne dafa am fu mu tàmbalee keroog bi mu gënee àdduna ne uwe ba bi muy génn àdduna ñu tëral ko ci jaat yal na yeex diggante boobu mooy ag dundam nga xam ne day tàmbulee ci benn seconde wala lu ko gën a tuuti di dem ba mu yàgg mu nekk ay minute dem ba mu yàgg mu nekk ay waxtu dem ba mu yàgg mu nekk ab bis bis boobu dem ba mu yàgg mu nekk ay bis bis yooyu mooy dem ba mu yàgg mu nekk ay weer waaye ba léegi ma ngi ca bis ba rek di yokku ba mu yàgg mu nekk ay at <laughs> kenn ku nekk ak at yim fi am borom bi subxanahu wa taala bind na ko ba noppi. waaye diggante keroog bi mu juddoo ngëbi loxoom di jooy ak keroog bi mu génnee àdduna tàllale loxoom woon ginnaaw àdduna waa àdduna di ko jooy diggante boobu mooy ak dundam diggante boobu mooy dundu nit ki dundu nit kooku nag riis lool seer lool rëy lool am na koo xam ne daa yërndu rek demaat àdduna moom def fi ab segond am koo xam ne yërndu na àdduna jot naa ñëw toog waaye ci toog rek la yem am koo xam ne bi mu ñëwee toog àgg na ci solo ak summeeku àgg na ci taxawal fi ay yëf door fee jóge waaye dunduk àdduna jafe lool ba pare mel ne lu yomb lool ndax ki nga xamante ne day dund ci àdduna day xuus day xuus ci am ndox waaye ci biir fi muy xuus am na ay jëfik ci biir fi muy xuus am na ay jaasi ak i paaka yu ko mën a jam ci biir fi muy xuusit noonu la amee ay neex-neex waaye bala nga àgg ci bànneex bi daa am yu nekk ci kanam yoo xamante ne yu mettee metti la yoo xam ne faaw mu jànkonte ak moom mu jànkonte ak moom jéem koo teggi kemtalaayal kàttanam bu àggee ca bànneex ya ak neex-neex ya mu mën a def ci moom ay jeexital dundu doomu aadama bi yéeme lool nga xam ne wallaay ku dund ci àdduna xuus ba jeexal ko dara taqut ci sa yére nga set wecc kooka jàmbaar dëgg la ndax li fi fiy taxalaate dafa bari moo tax bu yowmal xiyaamee bu ñuy évaluer dundug nit ki lool lañuy xool ndax moom taq na fi wala taqal na fi wala dafa jàll rek dem léeg mu gis lu neex waaye ngir mu jot ci day jaar foo xam ne daf koy taqal ay taas lay def ci moom te mu bañ a am taq-taq yooyu mu mën koo muñ mooy bànneex yi ngay muñ yu baree baree bari muñ bànneex yooyu mooy tax àdduna mel ne kaso ci yow ndax li ngay séent mënoo cee jot waaye yaakaar ne danga nga jot ëllëg moo tax nga di ko nangoo muñ tey ki nga xam ne nag dafa nekk ci tukki boobu nga xamante ne mooy tukkib dund tukkib dund tukki bi nga xam ne moom la nit def ci àdduna dafa soxla ñu di ko yàpp dafa soxla ñu di ko jox ay yóbbal waaye dafa soxla ñuy ànd ak moom loolu mooy ñu di ko accompagner ci lépp loo xam ne mooy tax dundam googu jag ndax borom bi nee na ko sa dund gi mu gudd mu gàtt lenn doo nga tax ma yebal la fi mooy nga bàyyi ma xel wa maa xalaxtul insa jinna wal insa illa li yaabudun bëgg ñu bàyyi ma xel moom nit a jinne loolu dong moo tax ma ne leen eh, lagg leen àdduna te bàyyi xel googu nit ki di bàyyi xel boromam war na bis bu set muy dogal boppam aw lef wu yaatu woo xam ne lef wuy wone ak njàmbaaram la waaye du lef wu koy <laughs> wuy wane rek ak njàmbaaram bis bu set mu defi seytaane ne ko da nga xam ne maag yow la nga xam ne da koy jaral bu alxamesee mu ne damaa woor ndax lan dama yar sama bakkan bi ak ci aju ne ko noonu bu altanee mu ne damaa woor ndax lan dama yar sama bakkan bi ndax damaa bëgg tiyaaba da koy jaral léeg-léeg ñëpp tëdd di nelaw mu ne ñokket jóg julli ay ràkka ne yàlla gis nga ko yaa moom jëlal suñ borom ne ko bég naa danga xam ne man doyoo ko dara waaye déggal gi ma déggal saf na ma maa la ci fayee lii ne ko noonu itam noonu lay ubbee téereb alxuraanul karim bi di ko jàng di ko setantal ak yi nga xam ne moo ci aju danaa ci ñëw noonu lay doxale ba agsi ci jël alalam di ko saraxe di ci dimbulee ndax lan jagal dund gi nga xam ne mooy dunduk àddunaam loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane démb doomu aadama bi daal kero bi mu nee cëpp ba ba mu fiy jóge mu gudd mu gàtt am na waxtu woo xam ne war naa góor góorlu ci am ci tiyaaba yu baree baree baree bari ndax lu ci am rek doyut lum ci am rek doyut moo tax démb ma la doon waxtaanal ci lu mel ne e, saraxe te mooy joxe sa alal ci yoonu yàlla ak yiw yi nga xam ne moo ci nekk léeg joxe gi ma wax la ko nit ne ah man de yoruma lu ma saraxe wala mu bokk ci ñi ñi sarax waaye nit ki du ñàkk mukk bés ci àdduna léeg-léeg mu mën a def jëf joo xamante ne jëf ja day taxaw ci moom yoolu sarax sarax bi du alal ji ngay làmb dong di ko joxe donte loolu daa bari tiyaaba lool te mën a def aw yiw te mën a def aw yiw waaye wax ju neex sax olof nee na sarax la te muy muy dëgg wa kalimatun tayyiba sadax wax ju neex sarax la maa ngi koy wax kenn ne ko ñun daa mel ne léegi suñu xeetu wax yi ni ñu amoon daa tàmbulee dem dañoo bëgg ab gëddaate lool te loolu xamewuñ ko woon sénégalais yi daanaka am na ñu baree bari ñoo xam ne mënuñoo wax ndànk lu ñu wax nit dañ koy gëdd jàmm ji amoon ak teraanga jiñ amoon ba tudd réewum teraanga da caa bokkoon yéeneente jàmm kenn ku nekk di jàppee boroomam ne moroomam ne boppam ngay dox mën a taxaw laajte nit jóg solo daal la won la fa ngay laaj ñëwaat toog ndax ñun noonu la ñu xamee woon. añ jot nga mën a dugg ci kër nit mu yàkk taaj ngeen bokk añ te sax du xam yàlla xam na ko nga bu mun la waaju baax ñëwal añ nga ñëw añ nit daan mën a dimbali moroomum nitam loolu mooy li nga xam ne mooy yar bi ñu mag ñi yaroon te réussiroon ko lool tam defoon ay jeexital yu yaatoo yaatoo yaatu loolu nag saraxal li ko yàq nag mooy benn benn li nga xam ne boo leen lebalee njekk ñu defal la njekka di léeg seytaane moo la ciy nattu ba xam yow yàllaa taxoon ngay def wala déet xam nga tey ki yorub otoom di dem moo xam day dem ci voyage yi ci biir dëkk bi ci biir réew mi jóge fii tey jëmoon dëkk sàngam romb aw nit ci tali bi mu taxaw mu arrêté la nga di ko yóbbaale mu yéeg fas kanamam moom mi nga yóbbaale nga xam ne bi mu ñëwee salaamaaleykum sax waxula ko daa yéeg rek ne pat jàpp njàmburam yow mi koy yóbbaale bu fekkente ne yàlla yi kese taxut seytaane moo naan la kii de moom sax moom ndax nitu kese kese la kii de nitewut kii de nangam nga ne ca waaja di ko corriger ak di ko di ko lañ mbat ak di damu ak yëkkati mbagg ci li koy defal ba far jëf ja yàqu donte loolu warut moo tax sax ñu bari defatuñ ko ndeysaan da ngay taxaw ci télé bi euh, oto romb la kenn nit a ca nekk mën naa am yéen a bokk fu ngeen jëm waaye gannaaw xamula du la yóbbu nga xam ne wut tiyaaba ci nit ñi tàmbali naa jeex ndax loraange yi nit ñi nite wut di teg wutkati tiyaaba yi mbaax gi mi ngi fi ba léegi am na ñu baree bari ñu bëgg a baax waaye yàlla xam na ne dañoo yàq seenu mbaax ba mënatuñoo baax ndax tey boo toogoon ci marché bi wala nga toog sa bureau dégg nit ku am ordinance am muy trente mille francs nga jël ko yónneeku ko te yàlla rekk tax xëy na bu siiwee wala moom ci boppam moom mi ngi ko yónnee feeg ñetti fan dina ñëwaat indi la facture courant wala léeg ñu indil la ordinance wu du dëgg bi nga toogee ni ñëw leb la jooytu la wax la ay metti metti yu muy dund nga yëkkati sa alal jox ko ngir mu faj ko bu subaa keneen dina ñëw wala moom personne bi ci boppam mi ngi ko defaloon day mel ne li ngay def léegi bor la dana ñëw wax la lu dëgg dana ñëw jéem a jaar ci sa kaw jéem laa dóor baat boobu la jéem laa dóor nga xam ne dana dem ba mujj yàgg saa yu la nit ki waxee jafe-jafe àddunaam yow li ngay li ngay gis ci kaw loolu mooy mooy day wax rek day wax rek dañoo dañoo bëgg lu yomb dañoo bëgg euh, day nàngam fekk daa am ku fa jaar ku ko ku la ko def defaat la ko defaat la ko ba mujj nga banku bari nañu nay wala boog ñooñu naan dañoo nay diw de moom dërëmam kenn mënu koo lekk moo ne lekk nañ ko ba tàyyi daa bari ay bor yum leble te kenn fayu ko mu jugi mu ne lebalatuma kenn ndax ñi yam ndax am na koo xam ne bu mu ñëw mbubb mu jot la sol mu ne ah borom xaftaan bu yiw bii de moom lim may wax dëgg la mu jaar ci kawam jàll mu ne borom xaftaan yi moom ñu ngi noonu rek. ca suba ga am na ku ñëw xaw a tubaabe ba indi ay gaarante mu ne kii moom ko tubaar kàlla la kooka itam ñëw jaar ca kawam jàll nga xam ne dinañ dal mujj gi muy góor muy jigéen muy lu man di doon dinaan ñëpp a moo tax nga mën a dawal sa oto xaaju guddi romboon jigéen mu bëgg nga yóbbaale ko waaye jigéen ja yóbbaale woon te am cee jafe-jafe wala nga déggoon ko ca rajo ba moo tax kii taxaw tey doo ko yóbbaale nga xam ne yow defoo bàkkaar xañoo ko ko waaye ku njëkk dem te sol mbub moom soloon te naxe moo tax tey nga jàppe kii am naxekat loolu yaatu na lool te bari nuñ ko mën a jàngate fi ne tey léeg-léeg ñi ñuy ay sëriñ wala ñi wooye ay boroom xam-xam da gis ko ci nax nit wala koo xam ne comportement melut ni mu war a mel yàlla xam na ko te pourtant am na ci ñu baax ñu yiw ñoo xam ne ñu ngi ci njub ñu góor góorgóorlu seen kemtilaayal kàttan doyloo lañ am mu néew ak mu bari waaye benn benn yi nga xam ne léeg ñu def ay njuumte day tax ñu généraliser ñëpp te moo ne ñëpp bonuñu waaye nag ñoom ki leen généraliser tooñu leen de waaye ka bokk ca ñoom ba noppi te dem nag am yeneen comportement yu mu amee kooku moo leen tooñ allah kulli alin seytaane day taxaw sampal ñu ay e, e, fakastal yoo xamante ne nii buñ ca fakastaloo day yeexal suñu dox ci jëm lu baax jëm ci lu baax waaye liñ mën a amee tiyaaba bari na lool te tiyaaba jooju moo bokk ci li nga xam ne moo ñuy tax am ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala yal nañ ko am moo tax bépp kàddu goo xam ne kàddu gu teey la dañ la koy jàppal mu nekk yoolub sarax kàddu gu teey mooy di wax lu baax boo nee subhaanallah alhamdulillah allahu akbar yooyu ngay wax yëpp day am tiyaaba ju rëy rëy rëy ba mel ne yaa ngi jël sa alal di ko saraxe waaye nag mi ngi rawee nag ci ki amut alal jum saraxe mm-hmm. ki amut alal jum saraxe moo tax boo toogee ci ab garam place dañ lay wax sax naan la bu fekkente ne dangaa nar a waxi caaxaan bala ko bala wala wax loo xamante ne wax ju kaflaak yooyu bala nga ko wax na nga wax subhaanallah alhamdulillah allahu akbar euh, laa ilaha illallah laa hawla wala quwata illa billah li muy tegtale du wax ko léemoo ko li ngay wax waxi caaxaan waaye dañ lay xamal ne la faf na wuutu sax caaxaan ya nga doon wax faral nekk ci loolu moo gën comme dangaa amul jotug wax am nga envi di wax rek inspiration bi ñëw def ko ci ay baaxiyaatu saalihaat ak ay takbiraat moo tax mag ñi buñ masaan di tukki boo leen laajee fii ak ñaata kilomètres la ñoom duñ la wax ay kilomètres dañ naan la fii ak foofu de mënees na fee jàng ñetti isi bi alxuraan diggante dëkk dëkk sàngam de tolloo naa ko kaamil ndax ñoom buñ daan dem bu déparé bu dee oto la ci jamono yi muy am yu mujj yi ci ñoom ñu baree bari lañ koy wéttalee yoon wa ak di ko xamee mooy ay jàng alxuraanul karim wala ay julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne boo jógee fii di dem ndar noonu ngay ànde ci yoon wi ba ba ngay àgg naka noonu naka noonu naka noonu nga xam ne doo bàyyi seen saa lu boo noppee ci farata ji nga nekk yaa ngi koy dundale jaamu boroom bi subhaanahu wa taala ci di wax lu baax moo tax wa kalimatun tayibatun aydan tafi mithla tasadduxin bi xawli salafi mu ne wax ju teey wax ju baax moom it dañ koy lim boole ko mu mel ne yoolub sarax ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo jiitu noonu lañ ko waxee yow mi bëgg tiyaaba itam ci fànn googu jéego yi ngay jéego dem ci jàkk ja wala nga dem fa bale ko yooyu yëpp dañ la koy limal mu bokk ci eh, tiyaabay sarax taal fa ab làmp mooy fayal mooy fexe ba courant ba di tàkk rek kon ndax taal làmp bu jàkk eh, wala di ko leeral léegi du du pétrole booy jënd du mat mooy taxani waaye mooy jàppale leen ca facture boo ko manee dañ la koy limal mu nekk tiyaabay sarax di digle lu baax ak di tere lu bon am pénc ku ca nekk da nga naan lii baax na danga nga naan lii bon mooy digle njekk di moytu safaan ba loolu nag da nga cay nekk ba noppi di góor góorlu nag di ci dimbali nit ñi amrun bi maxruufin wa naxyun sabata an munkarin wa ma waqa bihil fata kon di digle lu baax di tere lu bon te sax ca te sax ca loolu daa bokk ci li nga xam ne dañ la koy limal mu bokk ci euh, mu bokk ci ab sarax fekk luy lore ci aw yoon nga àndale ko kon waxuma nga def ko ca de waaye ci yar bi dañ lay jàngal sax ne la boo fekkee luy lore ci aw yoon na ko fa jëlee na ko fa jëlee léeg-léeg ci aw yoon mën naa doon eh, ay lu baree bari yoo xam ne boo xoolee suñu dëkk bi xam ne bari na ñoo xamante ne dañuy dañuy lore ci aw yoon ndax li nga jóg sa buntu kër bi nga baare nangam nangam ba ci dawal bu salte beeg yenn taxaw yu baaxul yooyu yëpp day dem ci <laughs> lore ci aw yoon waaye nag ki fekk luy lore ci aw yoon mu dindi ko fa kooku dafa def yool sarax imaatatul asa anis sabili naka noonu itam euh, tey koo xamante ne dafa silmaxa ko ay bëtam sëgg nga dimbali ko nga gindi ko mu doon jéggi télé bi nga nga jéggil ko wala nga jàppale ko orienté ko ca doxam dimbali ko loolu yëpp dañ koy lim mu bokk ci li nga xam ne sarax la tiyaaba ji ci kenn xamul num toll kenn xamul num toll imaatatul ada anis sabili hidayatun lizil ama dalili yooyu yëpp dañ koy lim mu bokk ci li nga xamante ne ab sarax la lépp loo xamante ne nit ki daf koo lekk daf koo lekk ci alalam maanaam dafa jël alalam joxe ko wala mu mu liggéey alal ju ko lew liggéey boobu mu ko liggéey ak alal jooju jëfandiku jëm ci jëfandiku lépp dañ koy bindal mu nekk yoolub sarax xanaa ñun bu pexe yi jubee kenn dootu lakk kon ñëppay am aw yiw bam doy ñëppay am aw yiw bam doy muuñ sa mbokkum jullit maanaam ngeen jàkkaarloo xoolante nga muuñ fecc sa kanam gi leeral ko dañ koy lim mu bokk ci sarax allahu akbar naka noonu teral ko teral ko jox ko wàccuwaay orma ji ngay jox sa mbokkum julit dañ la koy limal mu nekk mu nekk mu nekk yoolub sarax est que romb gi sa mbokkum jullit nuyu ko nuyu ko dañ la koy limal mu nekk yoolub sarax est-ce que boo amee aw yiw boo ko ca ndokkalee ndokkeelee dañ la ko cee limal mu nekk ab sarax kada ka alayhi bibtisaam taxniyatan taxniyatan lahu ida naalal maraam boo amee lam doon sàkku nga dem fa félicité ko ndokkeel ko bokk ak moom bànneex ba dañ la koy limal mu nekk ab sarax ëskay kada dalalaatu ala alxayraati lahu li nusxin wa ala alxaajaati naka noonu digal nit ñi aw yiw maanaam te di tegtal nit ñi lu baax tegtal ko nit orienté leen ci loo xam ne da di amal njariñ dañ la koy limal sarax ko nit ki fajal ko ay aajoom ci aajo ju man di doon dañ la koy limal mu nekk ab sarax kon liñ mën a lim mu nekk ab sarax daa mel ne dundu nit ki yëpp yëpp yëpp yëpp bu góorgóorloo daanaka bis bu yàlla sàkk man nay xëy di récolter ay tiyaaba ba ngoon jot moo tax loolu itam mat a bàyyi xel fi ne dañuy lim banaan la sax fekk kuy root ca teen ba nga defal ko am ndox ca baag ba nga jàppale ko ba baagam ba am ndox xëccile ko pëleem ba jukkile ko nga am ca nga am ca tiyaaba loolu mooy kuy sàkku ci dara nga dimbali ko nga dimbali ko tafriqu kalmiya min dalwika fii ina ihi mithla tasadduxin yafi est-ce que saraxa ngi noonu mbokk yi yaatu lool loolu lépp di ay yiw yoo xamante ne ni de indil nit ki eh, taxawaay yu ama am solo te eh, bokk ci nga xam ne ban naa bàyyi xel mën naa bàyyi xel bu nit feebaree nga dem seeti ko ñu bindal la ko tiyaabay sarax la ca nekk kenn xamul num toll moo tax nañuy góorgóorlu ci di seeti ñi tawat bari na diggante yu yàqu la ko yàq ñaari nit ñu nekk lañ wala sax ñu xamante wala ñu nekk ay mbokk am ku tawat demoo seeti ko mu ne moom day xam naa ne ak wére ñu boole waaye bu dee nangam léeg mu am ci entreprise yi de tawat toog lu yàgg waaye mu mel ne am na ñoo xam ne yëguñ sax ne yow absenté nga boo dee gis nit ba gisatoo ko solal sow dàll nga dem seeti ko bu sol dàll wi jafee jëla sab téléphone nga woo ko dee ko nemmeeku nañu nemmeekonte loolu aw yiw la te loolu itam dañ koy lim mu bokk ci li nga xamante ne ci sarax yi ma doon wax lool léegi la bokk mhm. kon euh, seeti seeti sa mbokkum jullit seeti sa mbokkum jullit dégg nga ci xadis ba ka nga xam ne dañ koo dëkk sàngam loo fay mu ne damay seeti sama mbokkum jullit damay seeti imaam Assane Cissé Seck ndax moom daa am te teraanga yum lay defal wala nangam ak nangam mu ne déedéet lu xew mu ne dama koo bëgg te yàlla rek tax suñu borom subhaanahu wa taala ne kooku aljanna la jëm ndax bëgg gi mu bëgg mbokkam mi ba tax muy jóg di ko seeti te yàlla tax moo tax bul bul bu la bu la jamono tënk mukk ci dara loo xam xamante ni day tax nga mën a am tiyaaba jógal nga wuti tiyaaba sa kemtalaayal kàttan dégg loolu baax na lool soxna aram sil la <laughs> seeti sa mbokkum jullit waaw seeti sa mbokkum jullit bi rawatina bu dee ku tawat ku tawat nga seeti ko boo àggee nga ñaanal ko te sàkku mu ñaanal la te boo àggee nga dalal am xelam te bañ faa yàgg lool te boo demee boo amee looy dimbuleem ay mbokkam nga dimbulee leen ko ca ordonnance yi ak lay tax mu jóg seeti gi baax na de ndax day dalal am xelam seeti gi baax na ndax day dalal am xelam waaye seeti gi baax na bul dem nag di fa jële ay information yooyu tasaare ji nga xam ne da ngay seeti malade bi rek ngir ñëw bureau bëgg a nett li nga ko fekkee ëpp naa def boo ko seetee loo fa gis boo ñëwee na ko suturaal te nga rafet ci moom njort te rafet ci moom njort ci ne day jugaat te bañ faa wax waxi dee te bañ faa wax waxi dee oustaz Alioune sàll mi mën a jàngale nee na nit ku seeti am malaat naan ko sa feebar bi dafa xew càlle rey na fa juróomi nit nee na kooku moom bu dee yaa ko rey <laughs> wax dëgg de ku seeti am malaat doo fa tudd waxi dee doo ko fa wax boo demee daal ñaanal ko sàkkul ci moom ñaan dalalal am xelam te boo amee looy dimbulee ay mbokkam ya koy taxaw nga dimbulee leen ko ca ordonnance ya ci lépp lu mu mën di doon waaye mu faatu ngay foqi baaraam mu xuma muy dundu tawat ngay foqi baaraam di jëlale naan suba laa fay dem bu faatoo nag ñu tëj barab yi liggéeyukaay bépp dem yendu fa ba ngoon jot naan eh, nañ ma wax lépp ma def ko di wut ngóora mën naa am lu toll noonu buñ ko defoon ci ak dundam mu am njariñ te bu fekku doon ab àppam jot bu boobaa du faatu kon seeti ko am na solo naka noonu itam dem gunge ji ku faatu bu fekkee am néew daa faatu bañ koy jullee nga dem ci jullee ga dañ la cay bindal yoolub sarax ñi yenu ko di ko yóbbu di ko denc nga ànd ca rob ba dañ la cay bindal yoolub sarax te lu doy waar la léegi sangum néew moom euh, daanaka barab yu baree baree bare bari bàyyi nañ ko jàngaleetuñ ko itam mënatuñ ko ndax kii dund ba defeetu dara lu dul waxtu woowu nga ñëw dugal ko ci morgo bi dem ñu tooyal ko ndox ba mu tooy laxas ko ne la noppi nañ xanaa kenn ci ay mbokkam war naa mën a summeeku nag ay àndandoom wala njabootam dugg ca biir waajal ko bisam bu mujj boobu ku jàppale jàppale ko ca waaye jël ko rek aw nit taxaw ci bitti dix minutes après ñu noppi ne la ne la pare nañ nga daal la koy laxasal ay laxas ko jox la nga yóbbu dem denc ñëw toog xamoo li ngay def de te ñu bari ci ñun kat bu ñuy waxtaanee wàllu sang néew wala nangam wala nangam booleetuñ ko ci yëf yi te lu ñu war a xam la lu war a jàng la ndax ku ñu sangut ku sangewut tam bis dana ñëw ñu sang la waaw benn nga doon ku sang nit wala bis ñëw ñu tëral la sang la rek waaye mënta ñàkk jullee ga door a ñëw denc ga door a ñëw loolu yëpp ay tiyaaba yoo xam ne ku ko fekkee am ci ca wu bari am ca wu bari léeg nag nit fekk ko ba noppi waxuma aw yiw la fay amee wala bàkkaar waaye mu def fa ay defin yu doy waar mm-hmm. yor sa téléphone bi wala wala nga mel ne ku yàkkamti wala di wax ay détails yi àdduna wala lu ñor ak lu ñorut loo xam ne kenn soxlawu ko fa ëpp naa def kenn du dem ci ab rob di jëw nañ bàyyi loolu kenn du dem ci ab rob ñii ñaan naan nañ ko denc ak duñ ko denc nga yor sa téléphone bi ne ci programme yi yi balay càng nga toog boo demee rikk waaye muñal tuuti ndax rob bi lu mu gudd gudd gudd gudd xanaa du mat une heure de temps ci armeel yi nga dellu si waat yow defee àdduna ci sa sa àdduna di dund te ki ngay denc moom amatut leneen lu muy xewli ci àdduna woole ca taxaw gi koy taxaw ci sarax yi la bokk naka noonu jaale ji ay mbokkam dem jaale ji am ku faatu nga dem fa massawu ko jaale ji ko loolu ci sarax la bokk yooyu yëpp euh, ay tomb la yoo xamante nii day dellu ci sarax waaye day dellu ci tiyaaba ju rëy rëy rek laa bëgg a wax moo tax ma naan ci sarax la bokk tiyaaba ju rëy joo xam ne lépp lu sarax di def ci nit te jige woon ko ci ku làmb alalam joxe acte yooyu muy posé day tollaat noonu ci moom yal nañ yàlla boole nangul yal nañ yàlla boole jéggal def ñu nekk dëgg-dëgg jullit tënkal ñu seytaane ba du yàq suñu jëf fii du yàq suñu jëf ëllëg yowmal xiyam bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yal ñu may ba ñu dund ba suba te weesu ko daañu ñëw nag ci waxtaane lu aju ci jàng alxuraan ak yi nga xam ne moo ci aju ak ay ngëneelam